<laughs> léegi uh-huh. bi mu dalee alquran uh-huh. nekk ci moom jàng ba toll ci wala taj yi dan uh-huh. boobu ci la maamam jooju génn àdduna euh, mu daal di dellu ci way juram ndax way jur daaram la yoroon waaye bi mu delloo ci way juram fa la jàngee ba mokkal alquranul karim karim jàng fa mboolem xeeti xam-xam yi waaye gis nga euh, imam sëriñ bi yàlla daf ko dimbali ndax dafa xelu woon la mhm, macha allah ku mhm. ñawoon euh, la mhm. ci bëgg xam-xam macha allah itteem woon lool ci bëgg xam-xam ndax wax na ni daawul tàqalikook àlluwam dafa taq woon ak àlluwam rek waaye teela deugmal borom bi subhanahu wa taala motax nga fekk muy wax nan walam azal munzu aqaltu taliban ma'rifatan lillahi jalla ghaiba waaw ba ma xeloo daal ba ma xeloo ci gàttal rek moom musumaa den di sàkku xam borom bi subhanahu wa taala waaw moo tax mu ni ulama wal awliya bi niyati wa amali wa qawliya muy wër nag di dem ci góor yàlla góor yàlla yi boroom xam-xam yi mhm. ànd ak yéen a ju sell mhm. ak jëf mhm. waaw uteeg suñu jamono tey waaw boo déggee ba xam da ngay pour jam ko da ngay dem pour ko ba xam waaw natt natt ko moo taxoon muy dem waaw pour gën a kawe ndeysaan waaw macha allah kon loolu dafa doon loo xam ne foo dem rek da fa jëlee dara foo dem rek da nga fa jëlee dara ah, ndax yéen a jee sell waaye itam gis nga. Mm-hmm. xam nga jàng ci daara. Mm-hmm. ba taalif fa téere tawxiid. Mm-hmm. muy Mawaahibul Quddus. moom la njëkk a bind. waaw léegi moo ngi bi njëkk bi nga xam ne nii. Masalik. Masalik waaw. ñii ni seen diidi. waaye ala kulli xaal. téere tawxiid bi mu njëkk a bind moom. mooy. Mawaahib Mawaahibul Quddus. Quddus di jàngale tawxiid bu sell. fan lan war a teg borom bi subhanahu wa taala. macha waaw mhm. eh, bind eh, mu lay inu sudur tabarkala dem ba ci yegg bindat bindat ko def ko mhm. mu naw wiru sudur mhm, masallah hakaza ya. wallahi gis nga téré yoyu dañoo dem ba di ko jàngale ci daara ji masallah waaw ya. di ko jàngale ci daara ji. te boobu moom mu ngi nekk. te boobu moo ngi nekk ci daara ji. allahu akbar. moom way juróom ñoo ngi nekk ci daara gis nga donga yi waaw wallaay wallaay. <laughs> donga yi sax ndeysaan uh-huh. dañu daan bëgg lool. Hmm. moom mu leen di tëralal. toppaatal seen bind di leen toppaatal seen bind. macha allah ndax lan. Uh-huh. mën a jàngale. Uh-huh. xam nga ku mën a jàng kum jàngal nga mën a jàng. wallaahi wallaahi ku mën a jàng. waaw ku mën a jàngale kum jàngal nga mën a jàng. <laughs> ku mën a jàng loolu wér. gis nga. danaan préféré sax ndeysaan do yan donga yi mhm. ñëw ci moom mu leen di tëralal que maam Mor Anta Sali mhm. waaw maanaam dong yi dañ ko daan préféré waaw par rapport ak sëñ daara bi waaw waaw par rapport ak ndeysaan sëriñ daara bi mhm. xam ne mooy woy juróom waaw ndeysaan waaye itam mu taalib ci fiq mu taalib ci fiq euh, lu mel ni jawharut nafis ndeysaan mooy laxdar yi la wayaat moom la woy moom la woy dëgg la ndax xam nga wisar <laughs> bokkul ak ci uh-huh. uh, uh, uh-huh. way ci ci gaaw a mokkal waaw bu day tax nga téere bi taalif ci tasawuf uh-huh. masaalikul jinaan waaye taalif ci luxatul arabiya uh, muy saadatu tulaab kon gis nga ni sëñ bi boobu nag moo ngi ci keppaaru way juróom nekk rek yëpp bi mu koy bindi way juróom boobu mu ngi nekk ak way juróom moo ngi nekk ak way juróom macha allah waaw mhm. euh, léegi no euh, na ci yoo xam ni ginnaaw way la ko bind mais ci biir yooyu lii nii yenn yi bi mu koy bind mhm. euh, yu mel ni tey bi ma njëkk wax mawaay bul quddus mhm. ak mu nawiru suduur yooyu noonu moom ci daara ji boobu mu ngi ci daara ji waaw ba nu jàngale ko sax ñu di ko jàngale ñenn ci ci biir daara ji ci biir daara ji waaw mais nag euh, en 1882. Mhm. ci la way juróom génne àdduna. Mhm. Maam Mor Anta Sali. Mhm. bi way jur wi génnee àdduna. xam nga way jur dafa taxawoon ak euh, Lat Joor. moom. mag ñi. dina ko dencee ba pare ca fan ko denc. ñu ngi deqale. wax na ni mag ñi woo ko. ni ko dañoo bëgg mhm. nga dem jaali mhm. sa euh, maanaam way jur mhm. Lat Joor ndax wëllëreem la woon ndax wëllëreem la woon te nga féete ko fa ko sa way jur nga féete woon waaw ah nu waxee loolu nag mu xamal leen ni leen <laughs> jaal gi de mën naa ne ah, waaye mission yi du benn waaye nag mission yi du benn <laughs> ndeysaan ci la bindee xasidaam gu siiw ga <laughs> قالوا ليركن لأبواب السلاطين تقوز جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا غير علمي ودين ولست أرجو ولا أخشى سوى مالكي لأنه جل يغنيني وينجيني ما شاء الله فأنا أفوض أحوالي من عجزوا والله عن حال أنفسهم عجز المساكين ما شاء الله ndeysaan dem na ba ca biir xasida naan in kuntu za mm. xazanin mm. aw kuntu za watarin ah. daawtu za al ayni mm. qabla ar ra'i wa shin <laughs> waaw rabbana tabaraka wa taala waaw rabbana tabaraka wa taala ma sha allah waaw Eh. <laughs> yooyu. bisaan uh-huh. kon. dëgg la kon mu neen wax nan ma naa jéng jëm ci. Mm-hmm. bunti buur yi. Mm-hmm. waaw mm-hmm. am. da nga woomal te da nga soxla li am lépp loo soxla woon uh-huh, uh-huh. waaye nag ma ni leen sama borom doy na ma doy na ma faqultu xasbiya uh-huh. rabbi xasbiya rabbi waktafaytu bihi wata doy loo naa ko wallaay doy loo naa ko xam nga na laa doy waaye doy loo li suñ Cheikh naan Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al eh, da nga mu naan gëm nañ yàlla waaye wóoluwuñ ko wóoluwuñ ko waaw waaw waaw waaw man mu ne xasbi rabbi waaye nag waktafaytu bihi walastu raadiya gayra al ilmi wa diin lu dul xam-xam ak diine aw ma ci defar aw ma ci yàq la sëñ Saliou daan wax waaw diine rek <laughs> diine rek waaw waaw kon mu ni sax lan lay jëlee sama mbir di ko joyal ñoo xam ne eh. lottu nañ ci seen i mbir yi bopp <laughs> ni ni miskin lalee ci eh, not maanaam lotte ci mbiram ci mbiram wallaay waaw dem na ba ni bu ma amee lenn lu ma soxlawoo mm-hmm. wala lu ma xaajawoo mm. daawatu zal ayni xabla roi wa shin waaw borom aras daal laay woo eh, borom aras laay woo rabbana tabaraka ba xasida ga jeex loolu nag bi mu amee mbooloo mi dañoo divisé wu ñu xam ni kii de ah maahir la mu yeewu la macha allah waaye ñeneen ñi nag ñi kii wérul waaw ndax euh, imaam xoola jamono yi ñu toll tey jii njiitu réew woolu la ñu ne dama laa bëgg a teg sama wet ah am na ñoo xam ne de bakka ne ne de <laughs> wallaay bakka ne ne loolu ndeysaan wallaay waaye mission yi du benn mission yi du benn ndeysaan <laughs> euh, mu yor daara ja nag continuer nekk ci liggéey boobu ndeysaan euh, ba benn bisu altine fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci la woote boobu moo ngi am fanweeri at waaw waaw waaw ci la woote daan nag man araada ma arad na mhm. ku bëgg li ñu bëgg nag moom mm, mm, ñëwal ñëwal <laughs> ah, waaye képp koo xam ne jàng kese. Ah, ah, moo la fi indi woon. Ah. man ngaa seeti. feneen foo xam ne waaw mottalee. imaam mm-hmm. euh, mbir mi dafa am man lu ma ci jàngatee. Mm-hmm. muy maanu gu mat sëkk. dëgg la ndax mënoon ngaa yor taalibe rek. Mm-hmm. di leen kii ci la nga bëgg. waaye xamal na leen ni léegi li ma bëgg am na lu ci dugg. léegi nag koo xam ne jàng nga bëggoon mhm. am nga libre choix mhm. dem continuer ji te boobu nag jàng moo xew boobu jàng moo xew jàng moo xew mhm. ndax euh, bokkoon na ki ci yi ni mayee soxna charte yi ñu mayee soxna mokkal alquran ba tari ko waaw yaa ngi dégg xis sa boobu góor ga waroon a mayee doomam euh, te ni kaamum alquran la koy may ku ñëw tari ba ca Euh, euh, ba ca digg ba rek ndeysaan daal di gàkk. <laughs> te doom bi am kum ci tànn am na kum tànn ndeysaan koo koy tari ba ca biir. <laughs> Uh-huh. ndeysaan nar a gàkk rek nekk naan bay na bay na. Uh-huh. léegi naa soxla sa jël. Uh, uh, kóor gi kóor ga naan bay na bay na gi ci kër gi yàlla na ca bay na naa topp. <laughs> gàggante ko ndeysaan eh, ci ci kàntang boobu noonu gis nga kon xam-xam dafa xewoon imaam dafa xewoon lool ba di mokkale alxuraan noonu ndeysaan eh, ba mu waxee loolu mm-hmm. ëpp ca daara ja dañoo dem ba ñenn des fa. Mhm. Euh, bokk na ci sëriñ Adama Adama mhm. Mhm. ki nga xam ne moo njëkk a jébbalu ci sëriñ bi.